di soxna Maymunatu Mbakke bintu Seex Abdullahi Ahad Mbakke ndax dañ koo bëgg sax yi mu am ñum fi bàyyi ndax xam nañ toogaay bu yàgg ak yitteel gu ko li yitteel moo tax waaye xam nañ nit am na toogaay yoo xam ne kenn na mënatu ko moo tax ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi fi teew ñépp di ci teg soxna maam say Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne ni ma ko waxee soxna si léegi nee naa ko moom ku yàgg ak ñun la ca njenn ju njëkk ja mën naa ko waxee noonu ba ñuy macha allah di root ak taxaneeg ak yu baree bari lépp fa la ko fekk moo tax ñu ne ko nag kaay yow nga jël teraanga ji ñu jaarale ko sëñ lu mu dem sëñ Abdou Lahad bala noo wax dara soxna si addee ji ngañ jox moom loxo bi ko sunu loxo laal nii rek ñu ngi koy jéegulu ndax ñun ñun dara du jóge ci yéen di ñëw ci ñun xalaatuñ ko xalaatuñ ko mukk kon ñu ngi koy jéegulu baax ñu ngi ñaan sëñ Seexu naa nga ñëw doxalaat ñu ko jox ñu ko ndax sëñ Issa daan wax sax bu duggaa bu mos naan ànd ak taalibe yi dugg kër sëñ Touba duñ dugg waxuma nag ñuy jël lu jóge ci yow nan nan soxna si loolu da koy dimbulee ah donc waaye lii moom daa laal sama loxo da ma koy dimbulee rek ngir sëñ Touba wallaahi da ñu koy dimbulee waaw lii nii am am lii ëpp amilio la ñoo ko jégguloo soxna si ñun sama am danoo dimbali sëñ Tuubaa danoo dimbali ñun sëñ Tuubaa danoo dimbali dimbali biir ak gubbiti ñun bëgguñu dara xamuñu dara waruñu dara sëñ Tuubaa rek sëñ bi rek sëñ Tuubaa rek ci lañ tàmbalee ci lañ yem dara yokkuwu ci parce que danoo dimbali soxna si nit ñi li ñuy séen li ne ci biir dafa gën te ñun suñ biir suñ tubaa ci ne moo ñu dimbali lii lépp lu neex la waaye bu doon a mooma duñ ci man dara ndax soxna si mat na ci seede ñun soxna suñu tuddee kër gi di soxna awaloo sëñ Mbàkke Madina andi ko jenne kër gi mu fa tabaxoon ñaari néeg la soxna si xam na ci dara ñoo sunu waajur bu jigéen ñoo ci nekkoon kenn raxunu sëñ Tuubaa ñoo fa fekk man maa fekk génne ma kenn fekkuma fa kenn kenn du kenn sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa la soxna si xam na ci dara mën na ko seede damay wax léeg ma ni sama buntu kër de wax dëgg yàlla mbooloo dina fa jaar di dugg waaye dëkkoon naa njeen ne man la maam ji yaay ji bàyyi ba teel a dem aw ma ni jaay Sëñ Tuubaa la du kenn fi ma jaar yépp li ma dox lépp keneen laa war na doon parce que dund naa ci réew yoo xam ni mënoon na maa nekk leneen loo xam ne duma ma dellu si ci sëriñ bi Côte d'Ivoire Cameroun Afrique du Sud Mali Éthiopie Congo Pointe lënd mu naa tawte naa lu ne daj naa ko mais sëñ bee ma téye sëñ bi rek kon sama suba sama ngoon sama lépp sëñ Tuubaa la dara du ko génn dara li des moom dooma xalaatuma ko xalaatuma ko xalaatuma ko parce que ki xam démbam moo mën a wax démbam waaw réew mii nit ñi mën añ gis lii rek mais li ma wax loolu soxna si mën na ko seede du kenn teel a ñàkk bàyyi ci ñetti at xamoo ko te amoo nijaay ju la mën a taxaw nga yor waajur wu jigéen muy soxna Aminata Lo tamit ngi dund ñu joxoon ko sëñ Baara Jenn mu jóge fa ñu jox ko sëñ moor Jenn bokk ci sëñ Siré Lo man bu ma doon bàkku su ma neexee di bàkku kenn mësumaa dégg may bàkku du ma tudd sax ay waajur sëñ moor Jenn du ma ko tudd fenn kenn mës ta dégg ma di ko tudd sëñ Tubaa rek lu tax lu tax nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy bàyyi yor naa ñoo xam ni ñoo ma fuuf soxna si man sama waajur ca 1800 yi la mag la koo xam ne ba ñuy liggéey jumaay Tuubaa yaa yaa ngi taxaw ci mag ña nga bokk mag suñ baara jenn ay mag lañ kon 1800 yi ci laa bokk ci jamono jii ci jataay bi néewaa na nga gis fi koo xam ni waajuram am na doom ji dundu am téeméeri at ak lu tegal sëñ Mor jenn am na doom joo xam ne mi ngi dundu waxtu wi may wax ak yow am téeméeri at ak lu tegal kon man doom doomi mag laa dencu mag laa doomi mag laa soxna si xam na li may wax sëñ moor jenn doomam mi ngi dund mi ngi ci téeméeri at ak nangam kon loolu bu ma dee def yi may def damaa wét ci kër wet ci néeg wét ci àll xam fi ma jaar ak li ma waroon a doon ak li ma war a nekk sëñ bi ni ma cas génne ma li ci gën a yéeme sëñ Mor jenn moom may tudd sama màggalu Tuubaa boo ñëwee sama kër ñëfa ëpp di yor ca waañoo ku ci sa baay koo xam ne sa baay sëñ moor a nekkoon sa sëriñu baay amul kon man sëñ bee ma dimbali fajaa laa dem am naa fa lu mu néew néew ñaar téeméer yoo xam ni ku ma ci woo nga wuy si ma ñii si mosuñoo dooni murit ñii sëñ moor jenn mosul nekk seen sëriñ ñii sëriñ bee ma ber foofa wutal ma lool loo xam ni xëccoowu ma ko kenn soxlu ma fi kenn ku ñëw ci màggal Tuubaa gi danga ko gis sëñ Tuubaa ma ko defal man sëñ Tuubaa daf maa génne ci fépp foo xam ni war nañ faa xëccoo loolu li mu jur mooy am naa ay mag am naa ay mag di soxna si xam na li may wax ndax nit ñi dañuy baaxoo du ma sàmba larde damay liggéeyal sëñ Tuubaa déedéet du ma sàmba larde damay liggéeyal sëñ Tuubaa te su may liggéeyal sëñ Tuubaa na mu gën a baaxee na gën a rafete na mu gën a kawee laa koy defee la noonu maa loo koy seedeel ndax lan fi ma sëñ Tuubaa dugal ndax lan fi ma sëñ Tuubaa génne tey ci sëñ jooju dëkk bi ñuy wax daaru jenn di daaru paam mooy dëkk bi sëñ saa jenn njëkk am ci kaw suuf ginnaaw bi mu jógee ci yéen rafaate la ko sëñ Mor jenn tëri ba fa nekk bu dul woon ak man waxuma dina fa am waaye dina yeex soxna si maa ko fa def te jaaraguma fi xanaa kon sëñ Tuubaa dimbali na ma te maa fa gën a tuuti maa fa gën a tuuti kon duma sàmba alaat courant baa nga fa ndox maa nga fa te jaaraguma fa kon nekkuma fii rek bàyyi leen ci ginnaaw waaye dama gis loo xam ne sama xol wéet nekkoon foo xam ne mënoon na maa dugg ci lu ne ndax Côte d'Ivoire day dëkk bu doy waar ku fa dund ay at ci ñi ma xam ñi ma xam ñi xam ne xam nañ Côte d'Ivoire oto ba yooyu ma wax ma ko waaye Côte am fa liberté mucc rek ñëw jokkaajowoo ya fay dal ak yooyu yëpp nga mucc ak ya fay xew sëñ Tuubaa dimbali la ba jaaroo ca loola boo ñëwee war nga koo sant soxna lii ak cant la yow nag Mbàkke li tax ñu tuddale lii mën naa ni sax toogaay bi wax naa ko nee naa fukki man naa mën naa am egg na ci waaye da ngay jàmbaar te man dama bëgg jàmbaar waaw man jàmbaar dama ko bëgg jàmbaar mooy koo xam ni li nga taxawal ñu liir ko fii waxuma sax la fay jariñu ci ay doomi aadama ci xam-xam waaye emploi rek soxna si ñaata nit a fay liggéey ñaata nit ñooy dem ca wet ga di jaay di fa dunde kon yow wax dëgg yàlla li ñu waxoon léegi patriote yow mii la koo xam ni li nga créé ay junni junni ay nit yi nit ñi ña ngi fay liggéey complexe maanaam sa foofu noonu bokk na ci département bi wala ci ci région bii nii wala ci dëkk bi damay wax li dafa ëpp ci ay parce que 2500 wala 3000 fu ñuy xëy loolu du ay caaxaan loolu du ay caaxaan bàkke loolu dañ laa war a wane war koo ànd ak yow ñun concurrence suñ la dañ lay roy jéemu ñoo xam ecole ba la fay dox ak bii ñun dañ lay roy dañ laa bëgg moo tax ma woo sañ Bas Guèye mi sëñ Basiru mi ma dénk école bi mu ñëw ma ne ko soxna mayee ngi nii jël leen ko muy seen référence ngeen am ay résultat parce que résultat moo am solo tabax nañu jàmbaar lañ wut nañ ay biis ak lépp waaye lay tax nag ñu mën a góorgóorlu mooy résultat te ki am résultat mi ngi nii muy soxna May moo tax ñu indi ko seen kanam pour ngeen man koo xool pour mu nekk seen modèle ci li ngeen di liggéey ngeen góorgóorlu bu baax a baax ndax lii ma macha allah bu fekkonte ne rek koom-koom lañ ci bëgg mu gaaw soxna si fii 5000 mètres carrés la liñ fa Everture bi ñu koy liggéey xam nañ li mu xam nañ ni mu gaawee xam nañ am naa xarit bu ne fii ku tudd sëñ Maxtaar Mbuub macha allah day liggéey ci mbirum xaalis ak homme la xam naa gaawoon na ma jël ko ko rek wutal ma ci ab terrain Nord wala Mamel xam naa loolu xam naa secret yi air plus laa koy def tëdd sama kër yàlla dogal di ko luyee muy dugg sama compte ma di ko lekk jàpp sama njàmbur waaye loolu sëriñ bi dafa maa defal lu ma lu ma lu ma jomb moo tax ma fas yéene bokk ci ñi koy liggéeyal bokk ci ñi nga xam ne ñaanam gi ma teg ci sama loxo sëñ bi la de du ñun mënuñu ci dara mooy li ma la wax koo xam ni li ko waxee fa nga daan tëdd la nga daan lekk fa nga daan nekk roq sa nga nekkoon maanaam macha allah soxna si xam na li may wax xam na li may wax daam xam ne bu ñu yóbbu suñu kër ci njenne waxuma dama naan mooy kër gi gënoon a ñàkk bokk ci gàttal mbàkkee mooy kër gi gënoon a ñàkk soxna su baax daal moo fa dëkkoon ak doomam akub sëtam may jànga ji ci yu maa ji ak kër sëñ abibu mën naa ni sax léeg dañ may tooñ ni ma xiif falaa ko tàmmi parce que men eggoon nañ ci bu ñu ñu reer waaye sëñ tubaa ñëw ah sëñ tubaa ñëw ba koo dégg léegi ah bëgg naa bokk ak soxna ami loo doomam ji de sëñ tubaa tax du kenn nag du kenn du kenn du kenn sëñ tubaa la du kenn du kenn sëñ la waaw ah, moo tax sëñ tubaa moom nag ginnaaw yàlla xam nañ li nga xamee ni yàlla dogal na ci liggéeyam xam-xam da caa bokk moo tax ñu fas yéenee góorgóorlu ci jàpp ci lii ñu ngi lay seedal ni yéene nañ 3000 mètres carrés moo des fële ñu ngi ceeg projet yoo xam ne ñaanal ñu ci mbàkke bëgg nañ ñu ci fi jànge métier du ñu ci yem suñ daara yi nekk fii nii man damay chaque jour su ma jógee ci li fàtte naa ko fàtte naa jumaa ja fàtte naa daara ja fàtte naa lii leneen laa bëgg a loo xam ne dañ naan du ko man dama koy man ndax suñ tubaa la bëgg maa ngi xalaat sax dama naan soxna si xam nañ ko daara yi ne fi am problème mu oto yi mang maanaam seen foos yi parce que dama koy jànkoteel xam naa li ci xew maa ngi ci xalaat ñoo xam ni dinaa fas yéene ba wut ay oto yoo xam dana wàññi loolu maa ngi ci maa ngi ciy waxtaan nag li may waxtaan nag mooy du ku koy def dëkkul Sénégal de man suñ tubaa damaa sànni damaa sànni sayir sànni ma Côte d'Ivoire sànni ma ca roq ya ñu man li may def di ma ci jàppale te sama sant sax mënuñu xam nga ko ki mënu koo yàq Côte d'Ivoire ka fa ëpp di ma jox xaalis soxna si maxtaar jéen jéen lay wax mënul jéen xamul xamul xamul sax fu mu dëkk sëñ Tuubaa nu boole waaw loolu nag bo moo tax néew ta yàq Sénégal mën ngaa yàq waaye foofu moom néew a yàq bala ngaa yàq ba yegg foofu ndax xamul xamul xamul jenn ci sax mënu ko loolu nag Mbàkke li tax ma jox damay sant sant nag bu nuróowu la ko ndamu sant goo man damay sant dafa am ku ñox sëñ Fallu Galas Loo dama koy faral di woo su ma woowee ma ne ko man damaa bokkul fi gars yi ne ak fi ma ne ñii dañuy wut xaalis man dama am xaalis di sant sant du ba sant damay sant sëñ si la wax na ko léegi du ay at ay ndàngam nekkuma foofu man sama gis-gis weesu na foofu weesu na foofu loolu nag waajur yii ma tudde école bi soxna si mën naa la ci wax soxna si xam na ko ni soxna awaloo nitu ja nit ku jaamu yàlla la woon lii du asaar kerew gëm gim gëm sëñ tubaab bi sëñ Abdulaat jógee dafa dem ca jumaa ja bokk ca sikkar ca fa la jële woon tànkam boobu ba ni mu fi génne àdduna day soox ab taalibe la woon ab murit saadix la woon tuddewuñu ko ndax day sunu maam déedéet waaye day woon jàmbaar ju ñu wuuf di def lu baax ñu di ko gis ñu xam ne ab royukaay la woon kon ñi ngi sant ñëpp di sant sëriñ daara yi di sant ñi nga xam ne jëf nañ ci liggéey bi yëpp tañ ànd ko ak ñoom jàmbaar lañ soxna si nanga ñu ñaanal ndax ànd nañoo ak sëriñ daara yoo xam ne équipe bu dëgër lañ boo xam ne ñu baax ndax xam nga at mu ne nga génne lu mat fukk ak ñaar ci ñu mokkal mokkal gu rafet ñuy naafi la même boo amoon moyen yi yàlla dogal man nag ba tey da xaasa jooju sëñ Tuubaa damaa defal lool dafa maa booleeg sëriñ daara yoo xam ne maak ñoom benn lañ nga xam ne daanaka benn lañ benn lañ am munoo munoo xàmmee suñ complicité ndax liggéeyal sëñ Tuubaa école bi yàggagul ngeen gën a góorgóorlu yéen ba mel ni daara ja mel ni soxna may waaye ñi fi nekk dal nañ ci ñoom seenum xel bu baax loolaat boole nag soxna yu baax yoo xam ni ndax àddina dañ naan lépp bu matee rek loo wut yomb ko kon nag soxna si soxna yee toog jàmbaar lañ yi soxna ami Mbàkke ak soxna muslimatu Mbàkke soxna ami mooy ndeyu daara ji du du sëqat du wax liñ maanaam doomi soxna maamati mu sëñ fàllu la yow waajuram nga xam na ni man bu defoon dara damay toog fi wax ko waaye ci genn wet sax moo ma gën waaw ci genn wet man naa nangu moom a gën waxuma gën ci sant yu gën ci jëf lu baax waaw ndax dama koy wax léeg-léeg ma ne ko yow maanaam bu ma bu ma bu ma naajee julli fajar seen ko ci kuur bi muy julli nga xam ne ba ma ko fi ba ma ko indee sama kër ba nëga ni maanaam man naa seede ci suñ boroom ni ëpp na fukki at mais musuma gis mu faat waxtu te waxtu wa gën a jafe nag lay julli muy fajar dama naan kii boo jar na sax ba ma yéegee ci kaw laa xaw sant waaye su ma séenee ci palanteer bi léeg-léeg ma xaw a bëgg a bëggantu sama ni moom la na si daa dem bi moo may soññ ci mbaax ci yiw ci nangu digal mu am rakkam di soxna muslimatu Mbàkke xam na sëñ Tuubaa ma booleeg loolu man sëñ Tuubaa dama ko génnul lii ñu fi def ci école bi bi mu doog a tijji li fi indi lépp moo ko fi indi tey jii tiraanga yi ñuy jox xale yi moo ko moo ko jëlee di doomi soxna sëñ Lamine mu sëñ daa kon man génn ma sëñ Touba waaw ka soxna xaa ah, kon man maa war a sant sëñ Touba waaw kon nag dama koy sant di ko gërëm di ko safoo di ko yëkkati di ko wane te kenn du ci man dara waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, jërëjëf eh, Cheikh Makhtar Diène ci kaddu yam solo yi eh, tabarakallah tënk na lu bare bare bare bare yoo xam ni dee su ko commentaire ndax ay bu leeree Eh, jërul commentaire eh, tabarakallah yàlla na a barkeel yàlla na a mottali eh, kon daal tabarakallah moom ab xasaami la na ko nafsu xasaami sawadat xasaaman wa allamatul karra wal iqdaama wa sayratu batalan moom foofu lay bokk waaye nag tabarakallah ku muñ muñ loolu la wolof wax wa man xara al baaba walaj walaj waaye tabarakallah man jadda wajat kon daal lépp ci effort am la waaye ci nangoo sonnam la waaye ci taxawaayam la ko amee